waaye lan moo xew. xëy xëy yaay lii du dëgg yow gañu nañ coupe bi. gaañee gaañu coupe gaañee gaañu mais Safi félicitation. <laughs> maa ngi nuyuwaat suñu dëkkandoo yi ak borom boobu weex bi di leen wax ni man damay jéng rek waaye duma daanu. moom dafay wax rek gémmiñ gi comme saak bu raay gañewoo lu dul pot de fleur bi di ray sa bopp. Eh! waa Père Ancelotti mi kañ lay bàyyi siisu. lim wax dëgg la naanu kaayu ruy la gën a nural ko kub. i. eh. vraiment lii tamit ànd leen ànd nawle moo gën a rafet. gis nga yow paa bu ñaaw. boo ko waxaatee naanu kaayu ruy dinaa la defaral. maa ni naanu kaayu ruy ba yokk ci sombi gerte kaay defaral ma. ku la bàyyi tamit. waaye foo denc nen bi nen bi laa wax. waay mi ngi neex ay waay lii lan la mais Père Ancelotti li xew démb lan la su ma waxee rek damay jooy lii cat ak làmmiñ dong la waa jooyal dama namm jooyu paa sax dama laa duut baram ba nga daw eh duut baaraam moom waroo ko fee wax de kii du sa morom pourtant xalaat bee ñaaw rek mais dëgg la de 4-0 duut baaraam la mu ni eh. eh du ngeen gañe nag ba pare di ruube de. lan moo tax daaw bañ leen gañe waxul leen fi ay duut baaraam. parce que ay xale ngeen dañ leen a nax 4-0. waa mais bul yàq sees bi. merde Safi merde Safi sa baay. toogal yow toogal yow. mais Rafinha Safi bu la génnee nii ngay fajee sa mer. Safi dafa soof trop am mbëtt la rek. booy duma sa morom sa jongu yàggul nga may jaay réew. Eh, Rafinha wuyul wala da bëgg ma leeral a li mu wax. sama jong yàggul de waaye yëngal naa biir néeg ba am doom. mu ni. eh. Busquets ça c'est catastrophe. xamuñ ni duma seen morom ci yëngal biir néeg man dama daan caabi lawbe. li nga wax ñaaw na de. takal sa tubéy bi tamit yoratoo yëfu xale yow it eh, takal waay. mais Vini gars yi dañ laa ragal xanaa ba duñ la marqué. loolu secret la du lu ñuy wax. waxal li xew rek bañ yi moo tax ma koy daw temps booy dañ ma màttoon màtt bu métti moo tax fu ma gis boromi bañ léegi damay daw. Eh! Benzema waxal Vinicius muy ñepp bañ a ŋaang. su ma mënoon taawi gémmiñ gi sax dama koy def ndax muy gën a ŋaang loolu moom moo ñu arrangé. Eh! yow Benzema doo koy joxe solution de. bés ni ki tey sax tuddee naa ko Vini Bobi del Maté. <laughs>